le président Ahlou Lamb mon jeune frère Alfali euh, di nuyu euh, mon ami Omar jaw nga xamante ni yàgg nañ euh, nekk ci communication département Mbour liggéey fi liggéey bu am solo di nuyu mon frère Mamadou Diop su ma nee Mamadou ñu bari dañ naan loolu c'est parce que dañ naan ambulance mais bu ma nee Mamadou xam nañ ni jege naa ko parce que dafa am la bokk parce que le président de mon parti El Hadj Malick ñoom ñaar duñu duñu duñu ñaari nit kenn lañ donc je pense que loolu aussi moo fi ñëwee je dama fi ñëw euh, deux fois benn bi mooy dama fi ñëw en tant que jeune euh, ñëw fi également en tant que alpha nekk sama rak xewle ma war a ñëw toog jàppale ko bon euh, statut parlementaire bi soo ñëwee moo fi wax dëgg yàlla yàlla xam na ko mais am naa ci vision boo xam ni peut-être waxtaane nañ ko keroog bu ñu ñëwee. Mm-hmm. et je pense que le président mu ngi fi du ñàkk ne peut-être dañ daje ci yeneen kuréel yoo xam ni dinañ ko waxtaane mais li ma bëgg a wax rek mooy dama leen di féliciter encourager leen. Mm-hmm. parce que en réalité la lutte maintenant nekkatul activité sportive rek lutte c'est une activité économique maintenant je pense que ñi ko xam wax naa leen ko keroog que euh, làmb ñi yaakaar ni. nekkul activité boo xam ne mën naa jël lu bari ci économie Sénégal euh, bu ñu ko jàppee noonu en fait ñu ngi juum ci lu bari parce que nee naa keroog man bokk naa ci ñu gëm que dañu war a décentraliser en fait la lutte léegi combat yi ñuy tëgg Dakar war nañ di ko tëgg dans les départements mu nekk ak même dimension war nañ harmoniser la lutte ba cinquante personnes du ci bénéficier wu mais peut-être 10 000 personnes moo ciy bénéficié wu parce que boo xoolee depuis presque 10 ans euh, la lutte bu ko doon xool fi mu tourné mën na yem ci 50 100 personnes cent personnes maintenant ban politique la ñu war a mën a def ba maanaam ñëpp mën ci gis seen bopp te loolu je pense que état bi am na lenn loo xamante ni peut-être euh, dox nañ ci commencé nañ ci dox ay jéego te loolu sax. wax naa ko mon frère Mame Bourama Sall qui est président de la commission éducation sportive à l'Assemblée nationale bi ñuy rencontré le ministre Matar Ba l'année passée pour wax ko ne jot na ñu am une banque nationale boo xamante ni day jàppale les promoteurs parce que bu fekkee da nga bëgg a tëgg làmb te amoo 10 millions yoo tëgg làmb mais war nga mën a dem ci benn banque mu àll 10 millions nga tëgg sa làmb boo paree delloo ko je pense que loolu euh, war nañ ko mën a régler euh, donc ci yooyu noonu en fait la ma la lut la intéressé moo tax présence bi day nekk présence boo xam ni peut-être dañuy ñëw saafonte mais liggéey bi dañ ma koy continuer ak ñi nga xamante ni maanaam yaakaar nañ ni war nañ ko mën a waxtaane y compris en notamment le président le vice-président di ko remercier euh, ci liggéeyam di ko féliciter aussi peut-être mag moom tooguñu lu bari mais xamante nañ par intermédiation euh, parce que bokk nañ sali xam naa li muy def foofu yëpp bon je sais son activité professionnelle donc xam naa lu bari ci moom te xam nga nit aussi bon bouche à bouche bon ñi baax dañu yomba xam parce que aussi da ngay kii rek gis nga lu baax nomination bi au niveau pour département de Mbour te ndam la également pour la jeunesse d'une manière générale et donc man pour lépp loo xamante ne xalaat na war naa ko mën a défendre pour la lutte nationale na ma ci na ma ci wax bu ko defee man loolu en tout cas kàddu yi mënuma ko mënuma ko mënuma ko foofu laa koy tënkee di leen remercier ma ak Pape Malick léegi nañu bàyyi poom parce que <laughs> bàyyi na tëgg léegi nag Omar parce que ah, léegi bon franchement mën naa ko déclarer donc ak euh, Yeroba donc ñu ànd taxaw suñu présence jàppale leen au nom de mon président de parti El Hadj Makou ku xam xam ne jamono ji fu ñu toll nii xat-xat yi bari na dañu am ñoo tey sax mais dama ne ko donc lu mu manti gi jox ko xam ne aussi moom yàgg bon te euh, ni mu bëggee làmb noonu ba tey noonu la ko bëggee